évolution travaux yi aussi ñu xool ko ba taxoon ñu woo président zone yeeg membre ODCAV yëpp ñi fi mën a teew ñu teew fi ñu constaté ndool suñu bopp avancement travaux yi parce que gis nañ ne kat avancement travaux yi xaw na yeex mais nag loolu mënuñu nekkul loo xam dañ ko war a wax noonu rek mais dañ ko war a demal ba constaté ko suñu bopp constaté nañ ko suñu bopp moo tax ñu ñëwoon tey xool si loolu ak suñ bët ginnaaw nag biñ ko gisee nag aussi am na si côté yoo xam ne nii dañuy def dañu jàpp ne responsabilité partagée la état am na ci wàll entrepreneur bi nga xam ne nii aussi mooy travaux yi am na ci wàll parce que daaw ci heure bi ñëw nañ fi une visite de chantier ànd ak le président de la ligue régionale Ablaye Fall bi ñu ñëwee aussi waxoon nañ li ñuy waxaat nii parce que lenteur yi amoon na ñu ne dinañ gaawantu parce que am na yoo xam ne c'est technique mënuñu jël n'importe ki kii mu ñëw bokk ci liggéey bi mais foog nañ ne loolu li nga xam ne nii c'est technique romb nañ ko kon fi ñu toll mooy ñu accélérer travaux yi accélérer travaux yi mooy lan parce que nawetaan dans euh, deux mois war na am ñun ñëpp constaté ndoon nañ ne fii nawetaan mënu fi am à moins que damay wax ne à moins que mu am volonté bu wér ci état bi ak président de la république commencé ci ministre des sports ak ñi nga xam ne ni surtout ak autorité administrative yi ngi nekk Mbàkke ak euh, euh, politique yi le maire bu amul mënuñu football ci stade bi dans deux mois dans trois mois donc moo tax ñu bëggoon a ñëw gisal ko suñu bopp waa Mbàkke xam ne aussi li ñenn ñi véhiculer ñii dañuy wax travaux yi mi ngi avancé à grand pas ñii ne travaux yi avancé wul ñun ñu ñëwal xoolal suñu bopp wan leen image yi ñu gisal ko seen bopp ku nekk mën a apprécier ndoo parce que ay structure lañ dans un mois suñu activité war na commencé te buy commencé war nañ am ci lu ñu jàpp lu tax ñu xalaat ne dinañ football ci stade Mbacké te lii ñu gis nii nga xam moom lañ fi fekk tey wax nañ ko ñun xool nañ fépp gis nañ ne le matériel yenn yi mi ngi sur place mais lan moo war a tax affaire bi yéex ba heure bi te dañoo jàpp ne ab chantier bu amee état joxe ko bu travaux yi xawee yeex ñoom ñi nga xam ñooy contrôler di jël seen xaalis di ko ci def war nañ yëkkati seen kàddu war nañ ci wax sommet waa ji nga xam ne mooy euh, travaux yi pour que li ñu bëgg mu sotti dañuy jël dañuy jël euh, dañuy damay jël exemple ci État Sénégal bii nga xam ne nii tey ay milliards fa dugg dele bi nga xam ne ni sax moom lañ joxe état bi joxe woon àgguñu fa mais ñun romb nañ fa parce que 2019 ba léegi ñu ngi 2019 lañ fi ñëw commencé travaux yi 2020 2021 2022 kon stade bi ba léegi wax dëgg yàllaam jàpp nañ ne avancé wul ñun ñëpp nag war nañ ko constater ndoo di di interpeller le président de la république le ministre Matar Ba ñoom ñi nga xam ne nii aussi ñoo joxe woon waa ji marché bi ñu some ko parce que nag ñu mënuñu toog di seetaan lii rek état dafa war a am volonté te dañoo gis ne volonté état manqué na ci wàllu stade Mbacké parce que su ko neexoon un an bi du ko am ñu joxe caabi kon nag waa Mbacké war nañu ñu ku nekk war na xoolaat boppam ci position bi mu nekk ñu toogee quatre ans. di topp ci benn stade boo xam ne nii ñee ngi naan deux cent millions ñii naan trois cent millions na nekk un milliard loolu du dara ci état mais dañuy interpeller état parce que ay structure lañ légalement constitué kon war nañ bu ñu gisee lu ñu jaaxal ñu interpeller état mi ñu yilif wax ko ne ko lii la demee ak lii la demee ak lii parce que su jaree état mu wàcce fi ay ay ay nit yoo xam ne nii corps de contrôle ñu ñëw contrôler qu'est-ce qui ne va pas à Mbacké ba travaux stade bi munut avancer fi ñu bëgg mu àgg àggugu fa ba tey état war na ko def ci cadre boobu lañ ñëwee. Euh, bii nag mooy su suma troisième visite man en tant que président district parce que ñëw naa fi première fois ma gis euh, euh, démarrage bi ma ñëwaat deuxième fois ma gis avancement troisième fois mooy bii dama jàpp ne quatrième fois bu ñu ñëw inauguration la war a doon te dans deux mois ou bien dans dans un mois et demi dama jàpp ne loolu lañ bëgg loolu lañ bëgg ñun en tant que district de football. Euh, di ko jaarale aussi ci président ligue de football Abdoulaye Fall mu jàllale ko ci ministre bi mu jàllale ko ci président de la république que ne ñun mouvement jeunesse mouvement de football yi nga xam ne ñoom ñoo composé district de football bu Mbacké que ça soit muy le les les clubs ak les les les les les les euh, amateurs yi nga xam ne dañ ci bokk les membres affiliés comme lu mel ni ODECAV parce que ODECAV ci biir membre euh, district bi la bokk lii nag moom avancement la te bëgg nañ aussi. liñ la wax rek parce que suñu équipe yi ñu ngi football sans dañoo obligé di génn ci dëkk bi di dem dëkk jàmbur di football. Mhm, mhm, mhm. di recevoir ci ay terrain vague. terrain yoo xam ne amul benn sécurité mais mënut a ñàkk parce que comme ñun démembrement wu footballu euh, fédération moom la ñu jox en tant que président district te démembrement boobu aussi ci état la jóge état lépp luy sport di football da koo jox euh, président fédération du football. ñun aussi ay démembrement lañ yoo xam ne dañoo ci suuf te lépp lépp état ko état ko li ñu bëgg nag mooy que ne mu fexe noo ba suñu stade bii dans un mois ou bien dans un mois et demi ou bien deux deux, deux mois maximum ñu réceptionné stade bi mën na suñu club bu euh, euh, di ci football en même temps mouvement nawetaan continuer seen i activité nawetaan parce que li ci des bëreetul. maire wu Mbacké dafa tabaxoon benn complexe. tuddee ko complexe de la jeunesse. maire sortant moo defaroon loolu inauguré ko bi ko defaree inauguré ko jox ñu caabi. jox ñu fa affect ñu ay bureau ñu demoon fa le maire nag rentrant bi nga xam ne moom moom lañ fal bees bi mu ñëwee moom kat am na lu mu ci constaté donc daal yi ñu bind une note euh, adressé ñu ko nee ñu dafa bëgg ñu restituer ko caabi bi ma loolu amee ça fait def na deux mois wala un mois et demi yoo xam ne nii joxuñu ko woon caabi parce que certains disaient que nañ rencontrer maire bi arrondir les angles xëy na dafa xamul quelque que soit alpha xam na xamul forme bi la ñuy ñaaw parce que li ñu li mu constaté mun duma ci wax parce que li mu bind si lettre bi rek mooy que ne dans au niveau de la lettre dafa wax ne kat tra fi amul électricité un deux mu ne il faut mu am cahier de charge foog naa ne bu fekkee ne ñaar yooyu moo ko yitteel le maire en tant que autorité municipale demande wut une journée mu def une demande d' électricité au niveau de la Sénélec pour courant bi ñoo dañu waxante dëgg il faut nit ñi tamit ñu nangoo waxante dëgg parce que maire yi mënu nekk partenaire u lu mu bëgg ci Sénélec en une journée mu réglé ko loolu war ko problème leneen li mooy lan cahier de charge dañu waxante dëgg cahier de charge maire libre na ci fal ku mu neex su ko neexee na fal sëñ May président conseil communal de la jeunesse su ko neexee na fal pël ku mu de fal pour administrateur euh, conseil bi posé ñu problème mais dañu jàpp ne wóorte privé parce que li ñu ni ñuy wax it il faut ñu préciser waat ko wóorte privé une jeunesse dans la lettre dañoo am ampliataire conseil communal de la jeunesse li mu def defu ko ODCAV rek conseil communal la ko def ODCAV la ko def district de football la ko def les acteurs culturels la ko def tëj ab barab bu ñu liggéey ba pare amul gardien amul dara ay bagage nekk fa defe naa ne loolu sax amul sécurité te maire war na sàmm sécurité aussi conseil bi patrimoine mairie la ñun Mbàkke lañ dëkk dañ ci am wàll libre na ci nag aussi mu xool kam moo koy gérer mais dañoo jàpp ne lii da ko war a fii il n'est pas encore trop pour que mu fii def li nga xam ne ni aussi moom la nit ñi bëgg mais dama gëm ne wóortoon na commencé ci jeunesse bi taxawee nii